Mm-hmm. ba te ñu ngi ci darsu Cheikh Xalil bi moo xool ne wa in rudda bi riihin fa ala amaani amaanihi kum bi de ngelaw ko wàññi mu ngi ci sécurité ba ko imaam mayoon xatta yési la ba ba te yeggee fa mu dëkk su yeggee nag ñun suñ loxo génn ci moom wa in maata ndem faata na moom kooku ñu mayoon kóolute xëy na fii ci suñu réew kon fa maa lahu alalam ja fay un bayti maal la la jëm alal ji jul ñee ko moom waaye nag in lam yakun dem nekkuloon maaxu ànd moom waarisun aju doon amul kenn ku koy donn bu faatoo fii ci ñun baytu maal la jëm fekk am na koo donn nag ah moo ko moom te yéen nag wala mu doxul te dugguloon ci suñu réew ma dugguloon xalaa tëj yii si ngir def commerce di jënd ay marchandise di jaay xanaa tëj yiis dafa duggoon ngir da sax fa sax fa nekk fa wala bu nekkoon seen baax rek ñoom wala xamuñ sax lu ko lu fi taxoon ñëw kon kenn du ko jël dégg nga mu ne wali xaatili yii bu dee nga xam ne dafa firi kóllëre moom noonu islam bi firi kóllëre am koo rey kon allah jël li xaatil ñeel ko ko rey moo ko moom waaye nag in usira dem jàppee na ko bu noppi fekk mu ngi dund su ma ko tul topp reyoo ko ko jàpp bu noppi rey moo tax wa ñeel na alal ja li xaatil yi aji reyam ja in usira dem jàppee na ko tëj ko su ma topp xutal reyoo ko nga mun wa illaa ndem duggul nag suñu réew ngir wut def commerce kon alal ji nuñ koy def kon ursila yóbbu yónni alal ja maxadiyat yi ana di amba dafa ko day fay maxadiyat yi di war si ñal ña koy doon ñoom lañ koy yónni moom noonu islam bi mu ne nag kaw a ay dénkaaneem yu mu woon mm. muy ma mbateef ma yëpp mm. fii ñun dañ ko yónnee mu ne waxal ndax yow jaamam yàlla mm. bala ñuy yónnee diyaam ba ñu koy donn mu dee fii ci suñu réew xaalis fekk nga xam ne rëñ ko ci ci xeex moo tax waxal wa in qutila fii maarakatin donte dañ ko rey ci xeex dañ dama jullit ñi te jàppuñu ko sax nag dañ ko rey noonu dañ koy yónnee aw fay wala di nekk fayul dañ ca bayti maal mu ne xawlaa ni ñaari wax la ca mu dawan bu dañ ko rey jihaad noonu rek te jàppuñu ko tëj ko na alal ja dañ ko yónnee ay mbokkam wala bayti maal la jëm xawlaa nga nee na ukura si na di xayril maliki koo xam ne duur moom amooy aji moom da nga wax bi de kuria li xayril maliki ku julli boo xam ne moom moom li yëfar ba yoroon si béef na istiraaw si nañ jënd marchandise ya sim nañ sim nañ xamul tax dañ ko may kóolute ne ko ñëw ci dëkk bi may na kóllëre mu jël àllu jurit bu ko jëlee moo ko moom la mu jël bu demee moom seen dëkk moo ko moom léegi nag yow nga xam ne lii alalu diw sàngam la moom moo ko nga jënd ko si moom mu wanteer la ko xam lu mu tekk mooy demal jëlaat indi jaay ma demal jëlaat andijaay jaay ma loolu jàng jàngale sim ko ki ko moom nag xamee ko moom da koy jënd de ki ko moom aha <laughs> da koy jënd gannaaw imaam moo may ndigal wala keneen moo ko ndigal imaam wéyale ko lu mu jël ci alalu jullit ñi yóbbu ko seen dëkk nga xamee ko te yaa ko moom jënd rek fi ne nag keneen jënd ko te moom moomut ko parce que li muy tekk mooy demal di laa indi ma bu ko defee boobu nag li xayril maaliki istiraawu silaan yi waaye nag fàttal fànn moom bii ci njënd ba bu xasee jënd fànn ko ko moom ñàkk na fàttal bii ci njënd ma ba tey wax fànn bi ba tiim seen maye laa ñeel ko ni ñoo ko moom di kuñ ko may ko ko moom ñàkk na ko xanaa jëndaat rek jënd rek lu dee waar la mhm. Mhm. dégg nga nee na ba tey wanti saaw ma ak nangu la nga xam ne suri surixa sàccoon na ko su ma topp xeede waññe koof bii ak loolu ñu sàccoon li bari naa ñaar suñu réew ala asra ca la gën a feeñ nee na ba tey yaa ngi jàng de ci la mu jël ne sim nañu moom ci euh, noonu islam bi si muyu bi si bi mu sàcc lu jàmbur sàcc dem seen dëkk ab diir ñëwaat suñu réew nga xàmme ko nangu ko loolu la wax li nga wax bi xàmme ko nangu ko loolu la wax moo tax man ci sama maa ak nangu loo xam ne suñu xalaat defoon na ko su ma eedee del sof bi ak moom li bal dina xala asari dégg nga wax dagan na nangu wax dagan na nangu ko dagan na nangu ko waaye nag mu ne laa axraarul waxuma ay góor yoo xam ne muslimoon ay jullit lañu déedéet daganu nangu leen ci moom déedéet xaddi moo ñëw nañu bi ak ñoom kenn du ko nangu xam lu bëgg a wax ki nga xam ne ab yéefar la dafa jàpp ay góor yóbbu seen dëkk jàpp yow yobu sen dëkk xam ab diir ñu ak and and ko and ko ci ñun buñ ko nangu kenn ko nangu la axraarun muslimuna qaddimu bihim di ko nangu léegi mo leen yef mo leen yef di ko nangu deng mo xam ay jigen lañu mo xam ay gor lañu te buy jigéen ñi it dagan na moom mu jaxasook ñoom dagan na moom xar bi yu ba muy xar bi yu ci ci arab na mu jaxasoo ak ñoom bu jigéen la dagan na bu ma nag moom na ba tey déggal de moom na bi islaam yi ci tuubam ga lépp lu mu jëloon lépp lu jëloon xayral xuruli al muslimi ku loolu ngor soxna jullit la comme moom du ko moso moom li nga fuddiyat joteef na umu waladi umu walat wooteeku goreef na umu dabaru kuñ gannaawal ci lan nag min solisi sayidi ca ñetteelu xaaju sangam ba ci lañ koy gorelee dégg nga wooteeku goreef na umu gannaawal sang bi moo ko doon bu ma deexee gore nga te ba faatu na alal jëm mën na ñetti million te ba million million lañ ko war a jaay lañ ko war a jaayee loolu moo tax mu ne ko moo tax na mu dabaru mu tudd say di ñetti xaaju xam nga léegi jàmbi ci boppam moo moo moo bu ñuy miraas dañuy continuer jàmbi mu war a jar nangam xar baa nangam bay waa nangam léegi kon yëpp la boole te buñ ci boolee jaam yi ak xar ñetti million la kon koy goreel ndax xañ na ci suluf ba xañ na ci suluf ba loolu la wax te woo goreel na amu dabaru mu tudd say di mu tëkk la ajrin ku ko la mu jëm dig bam ba doo bu naa ko dig ba a sadaqallaahu al